United Nations is warning of a worsening humanitarian crisis in Sudan's South Kordofan region, where starvation is stalking a staggering 900,000 people. Well, that seems to be all in this edition of the news. Thanks for your time and join us at 2200 hours for another bulletin. <laughs> salaamaaleykum. maaleykum salaam. sëñ bi na nga def. nam naa la. maa la raw ci loo nekk. ah sant yàlla kanaa jaaxle. alxa jaaxle jéem. men waaw. Modou Kébé yaa ngi gis euh, bâtiment bu ma xoloon tabax. waaw waaw waaw waaw. Euh, sa bourse bi. Euh, jekk la def. ah sant yàlla. alhamdulilah waaye nag catak si nar a dugg. boo ma jàppalewul dana ma rey de labarees yaag jaaykati ciment bi bor laa leen xam ne xamul lu ma fay gaay ndax su dolli ma ñëwoon pour nga lebal ma xaalis na borom kër gi nee na. dana moo ma yónnee xaalis waaye taay am na benn doomi ndeyam buy waaye ñëpp si dana ko jox xaalis mu indi ko. yow da nga ah. dof. bu ma la wax suma eh, solo nga xaalis kenn yóbbanteetu ko. Hmm. di ko jox nit mu koy yóbbu. FIG bureau de ñu ngi fi. waaw xanaa gisoo ma. jàkk kay nga sama xale yi dañ leen di seen xaalis Western Union. Hmm. Western Union. ma ne. waaw jéggi nga ma si làmmiñ. waaw yow bàyyi Ablaye lu mu yónnee lu ne. waaw nga jël ko dugal ko si sa bopp. déet xam nag waa koñ bi ñu ngi koy laam-laami. koñ bi nag yat laa leen toppee rek bàyyi leen ci kumpa. neel benn. benn. Union. Mhm. maa ngi koy jote ca FIG bureau d'essence. Mhm. FIG bureau d'essence mooy banqaas bi nga xamante ne ni seen tarif. Mhm. bokkul ak tarifu xurdab yii. seen jotum xaalis soo demee di jël sax xaalis xaalis bi da nga ko jot ci ay anam yu set ay anam yu leer xale yu baax ñoo la koy jox xale yu set loxo ñoo la koy jox boole la ci réeg ju neex mhm. man su ma jotee sama xaalis fay sama school fees su xale yi ba noppi dese sama balance sañse ah jekk na de bu ma neexee palmaanu tey mhm. bu ma neexee cuubu ëllëg mhm. bu ma neexee jas naa. sëñ bi dafal ndànk ma nit. waaw ndax FIG bu ma fa nar a bokk man mii ñu nar maa yónnee xaalis naka laay def. FIG du bokk. ah. soo amee mbokk mu nekk bitim réew. Mm. mu am ria. Mm-hmm. mu am dollar. Mm-hmm. mu am pound. Mm-hmm. xaalis bu mu mënta nekk. voilà gi nga pound bu nga wax noon waaw moom lañ maa yónnee saa su. bu ñu la ko yónnee nag trop FIG bureau de change. ci li nga xamante ne maanaam mooy Western Union. Uh-huh. ñoom dinañ ci taxaw. Uh-huh. ba jël xaalis boobu. Uh-huh. jox la ko ci si réew mi. maanaam daal danaa jos xaalis ba te dara du ci manqué. dara ci manqué. te dinaa xam wécc. doo ci fayante mel ba pare dinaa la wax leen. FAG bureau de change. Kayraba avenue lañ nekk. am nañu bànqaas yoo xamante ne ci réew mi at daf ko wër. gis nga bu doon yaa nga Sénégal di ñëw toll si baara mhm. ñu yónnee la xaalis ku ko euh, téléphoné la ne la yónnee nañ la xaalis mhm. da ngay jaar kaaranga euh, baara rek wala Amdalaay rek nga euh, kaaranga Amdalaay nga jot sa xaalis dem sa yoon soo jéggee Banjul am nañ fa ay bànqaas soo ñëwee Kayraba Avenue foofu la main office bi nekk li ma a neex mooy eight o'clock la ñuy close juróom-ñetti waxtu ci guddi ci ngoon ci guddi gi ñu close waaw yow waroon nga maa gaay li demal kool sa waa ji léegi ne ko. Ah. liggéeykat yaa ngi la taxaw. Ah. na la yónnee xaalis bi. Ah. turu FIG bureau de change te bu la ko yónnee. Hmm. di nga ci fay say liggéeykat jënd ci bagage am make yourself uh, kii. yow nag waxuma la dof da nga doog kooram lépp luy njëriñu askan bi yaa ko njëkk a yëg la man nii daa mel. ah yow moom bu yeboo ne la jiite jàkk ja rek. wax maa nga ne la maa ngaa koole waaj. boo ko koolu def ma ne. ah ñaana ma wecc nga xam si seen FIG Renaissance. Take your money. You don't have any problem. Balance yourself. Say, say, right. Hello? Wow. Wow, man la man la man la ala ala jisa. Mane jarum nga xassa doomi ndaje mo mako yoni tra nga yonne mako ci FIG bi da sans FIG ke mo moy ndariñu askan bi yo nak rax su dolli bi ya ma ray na sa ki man la ma rey jay ka resima bi ne ma ray si dekk bi mané ne ma ray yo ne ma ki khalif aha wow ak aussi Western Union la la wax su lu baña yaga ablay ah ñetti waxtu lay gaa wacc wàcc ma jot ko tay wa dafa lool li nga japp lu ne bako wa baxna merci beaucoup bye.

koom-koom réew mi te it dàq nag suñu biir ba tax nañu yombal te it gën fee gaaw la yónnee wala jot sa yóbbante xaalis ci réew mi yëpp ci pusat benn bouton rek nga jot sa xaalis ci saasi ba tax na Moussa yaa ngi nii ci Banjul di yónnee xaalis contractom bi ca Basse Ablaye yaa ngi nii Serekunda di yónnee school fii ci doomam yi ca Bansan Aïssatou ngi nii Brikama di yónnee yaayam xaalis ca Soma Modou ngi nii Farafenni di yónnee nijaayam xaalis ca Baara fépp fu mun a ne mun ngaa yónnee wala jot sa yóbbante xaalis ndax Reliance Financial Services dañu ci place yu baax ci réew mi yëpp doo sonn doo xëccoo ci njëg lu yomba yomb kon yóbbantel ak Reliance ci lu yomba te gaaw Getting frustrated with your mobile internet? With QCell's fast, reliable and affordable 3G internet, you can use the internet the way you want, when you want and wherever you want at unmatched speeds. Like you can have access to all your favorite sites and applications like WhatsApp, Skype, Facebook and Twitter. With QCell, you can stream videos and download the content you want effortlessly. QCell Mobile Internet. Stay connected. Qcells Q Football is the easiest way to get up-to-the-minute updates of your favorite football team in league or cup competitions.